ci demi-finale bi Obeuly daan na Franc jël bu rëy hee Obeuly mi tey daa décidé démb ñëwul te arène nationale waaye tey am na leneen lu Obeuly wane ndeysaan keroog bi fi mujj dimanche général Malika moo ko génnee par point mu am Emine François Gomis demi-finale daan ko jël bu rëy daan ko ak manière moom Obeuli ndaysaan Zambala mu ngi noonu ak Fils de Batlen ñoom ñaar daan dem final am Obeuli Zambala Fils de Batlen ñu ngi noonu Fils de Batlen sikki nag champion la xale boo xamante ni compétition yi bi mu amee ba tey mu ngi ñëw démb terrain gaal gi wala arène nationale tas yaakaar ko daan demi-finale ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Zambala ëpp ak Fils de Batlem ñu ngi noonu ndeysaan Zambala ndeysaan cey lamb lamb garaw lamb moo garaw ndeysaan ëbbale ngay jaayu Fils de Batlem Zambala daan na